amal tey beneen entretien comme niñ koy defee samedi bu nekk ak euh, benn soxna bu nga xamante ne kenn dootu ko présenté ti mu daal di wane lépp li nga xamante ne mooy savoir faire ci côté consommé local fii ci biir réew mi ñu bëri xam ko ci turu nunu design ñu koy bàyyi rek mu daal di nuyoonte ak ñi nga xamante ne ñooy téléspectateur Dakar Actu yi nunu ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum maa ngi leen di fay soxna May. ñu accueillir la tey ci si nga xamante ne mooy suñu plateau bi nga xamante ne dañ koy def chaque samedi amal ko ngir waxtaanee ci wàllum conséquences yi nga xamante ne euh, Covid 19 bi maanaam coronavirus da koy def ci société bi ci wàllum euh, consommer local bi gis nañu ne que tey jii on est obligé ñu delluwaat ci loolu ñu ñëw tey fekk si la ci sa biir kër ñu nar a waxtaan ak yow ci loolu nga xamante ne mooy consommer local ci bépp domaine nag muy ci wàllum lekk bi muy ci wàllum solo gi muy ci wàllum leneen ak leneen ak leneen tey ji ban analyse ngay def ci loolu. bay tout euh, tout d'abord euh, massawu dëkk yi nga xamante ne nii am na ay nit yu fa yu fa décédé loolu moo lay wan ne coronavirus réalité la donc ñun Sénégal ñu bokk ci ñi nga xamante ne nii euh, daf fi dugg ci donc il faut que ñuy fagaru wax waxaat la waaye c'est important yokk set bi raxas loxo yi et puis euh, respecter euh, mesures sanitaires yi Kobe. ñu jël ñu ñëwaat rek dellu si si question bi maanaam li nga xamante ne mooy wàllum consommer local bi gis nañu ne que léegi on est obligé ñu delluwaat ci ndax fi li nga xamante ne foofu la ampleur bi toll fi mu nekk nii ci feebar bi gis nañu ne que frontières yi tëj na ñi xam ne dañu tàmmoon tey ji produit yu jógee extérieur et tout ils sont obligés nga xamante ne yam ci li nga xamante ne mooy produit locaux yi yow nga nekk di yëngu ci loolu tey ji ban analyse nga si def ak ban étude nga ciy def ba alors loolu moo lay wone ci euh, fu euh, fu monde bi toll Euh, ku si nekk da nga li développé euh, Sénégal fi nga dund ay sénégalaise lu jëm ci lekk son solu ak même euh, il est impératif de dafa dafa dafa jot ñuy effectivement crise bi bu mu produit yu bëri dugg seetul loo xamante ni dañ ko doon jéegaane feneen. surtout euh, comme dugg seetul euh, ñi am na sax si loo bi ñoo xam ne façon made in euh, Sénégal bi yàgg nañ ko di dund. mais pour ñi nga xamante ne ni commencé guñ ko ou en tout cas je veux dire yëg-yëg boobu amuñu ko woon c'est le moment c'est l'occasion pour plusieurs raisons benn bi euh, c'est très sain <laughs> surtout lu jëm ci lekk. Euh, ñaareel bi ça nous ramène à suñu ay tradition donc euh, du ay produits en tout cas ño fi manqué accompagnement évidemment foog mo am wax nit ñi par exemple su ngeen toggé ri de la vallée naka ngeen koy toggé su ngeen bëggee défar gâteau gâteau ak ak euh, ak dugub naka ngeen koy défaré ba ben, su ngeen bëggee défar ay ay crêpes ak ludul farine bu de blé naka lañ koy défé mën nañ ko def ci ci ci dugub ak si yeneen ak yenen ak yenen donc waaw c'est le moment ñu ñu djublu ci fateliku lepp li nga xamante ni suñuy mam lek nañ ko naan nañ ko lu lu sain kessé mo fi am. justement yaa ngi wax ci côté tradition bi. ak côté yi nga xamante ne suñu maam yi noonu lañu daan dundee ndax jaw jotul tey jii ñu jéem a référé waat ci ñoom parce que feebar bi dafa mel ni que tout le temps daf ñuy yedd ci côté bu ne.

motif wala design yu bëri yu ñuy permettre ñu mun ko teg suñuy atelier di ko sol di ko proposer nit ñi loolu économie du di dëgër loolu moo tax yenn saay lu euh, Covid 19 dugg si si monde bi yëngal yëngal yëngal permettre en tout cas continuer di parce que coton ñaawkat bi continuer di dund ràbbkat bi continuer di dundou et puis chaîne bobu muy def dina permettre ku si nek si ñun euh, mën ci dund té té té du son ñu ngi gis ni que Sénégal aussi am nañu habitude boo xam je veux dire pays africain yu si bëri sax dañuy produire li nga xam ne moom matière première mais le problème c'est que transformation bi mooy seen problème dañuy obligé importer exporter ko ñooñu noonu nga xamante ne ñoo ne biti réew defar ko ci seeni usine daal di koy renvoyé waat avec des prix excessivement chers nga jàpp ne nga yaakaar ni que tey ji état warul favoriser li nga xamante ne mooy defar ay structures yoo xamante ne ay usines yoo xamante ne nii tey jii dañ ci mën a transformer loolu yëpp ba nga xamante ne que dinañu mën a dëggal li nga xam ne mooy consommer local bi une bonne fois pour toutes ben loolu moy euh, moy euh, moy combat bi ñu nekk di di jëfé évidemment euh, il faut qu'on arrive à un moment où moi li ma fi done expliquer sank je comprends bien ñi nga dañuy am matière première bi sen dëkk yóbbu ko bitim réew pour pour mu dellu ci wat après si si si ñun mais yoyu yëpp dafa am ay base yu ko lal base yi euh ñu mëna xam relever déjà besoin you yu yu am évidemment ensemble nek nek en tout cas bolo c'est trop dire mais pour monter industrie yi nga ça veut dire chaîne de production du début à la fin muy il mais il faut que je veux dire noyau taxaw état mun si dugal loxom pour ñu jëm kanam. Mhm. su wesso nak bëgg-bëgg gëm-gëm la. gëm-gëm la il faut que que que que ñu gëm ne lu war mëna nekk la il faut que ñu convaincu aussi que lolu moy li nga xamante euh, para paraawu bee bokk na ci li développer suñu économie yi. Mhm. tey ji par ta voix ak par la voix de toutes euh, tous les les les les

artisanat d'appeler euh, le consommé local mais d'appeler aussi dafay que que... nous ci c'est important et c'est ce que je disais tout à l'heure euh, Covid 19 nous permet permettre euh, sama euh, collègue ci lu a de daf ma que wax ne pouvons passé ñuy waxtaan nous ma c'est le moment que autorité yi ñu carrément fi ba ñaar ñetti at lepp lu état di def comme cadeau lepp lu nga xamante ne nii moom la ñu commander lo xam da fay jóge ci yenen dëkk yi c'est le moment ñu xol ak artisan yu koy liggéey fi et suma waxé artisan dafa vague ñëpp xaj nañ ci ci biir ñom ñu def lolu au lieu ñu koy dem jëndi di dundal yenen économie mhm. donc idée bo xamante ne idée bu euh, bu bu am solo la mhm. euh, corona nañu permettre ñu gëstuwaat suñu ay PME suñu ay industrie et je je je pense que comprendre que par contre ak nek ci ñaari affaire la mhm. mais c'est un combat qu'on doit mener amuñu sax euh, pexé comme on dit lolu mo fi sës

c'est le moment c'est le moment donc nous avons le oui euh, le fait que les sénégalais des fois accessible mais loo munti gis tamit si àdduna dafa am coût. Mhm. dafa dafa dafa am coût euh, prix. Mhm. évidemment parce que la qui nit ki euh, ba foog ñu foog ñu foog ñu xam loolu lu muy jar mais jënd ko aussi wala sol ben créateur wala ben designer bu bu bu bu bu bu am atelier am wala boutique am wala am markam su so sol mu neex la na nit ñi engagement la. Mm-hmm. engagement jàppale le consommer local engagement euh, mag ak li nga xamante ni suñu dëkk yi mom lañu soxla. c'est le moment aussi de réfléchir c'est suñu textile. Mhm. donc loolu dafa capital. Mhm. Euh, suñuy euh, ouverture baax na jël ay matières yuy jóge fu nekk baax mais aussi c'est important que ñu mën a dundal cuubkat bi. Mhm. dundal ràbbkat bi dundal béykatu coton bi dundal ñi nekk suñu atelier dundal ñi nga xam ne ñooy créer dundal ñi nga xamante ni nii ñoo koy sol parce que chaîne boobu dara su si daggul forcément dinañ gis euh, euh, retombé économique yu muy am ci suñu suñu suñu suñu dëkk yi. Mhm. yaa ngi wax retombées économique mais gis nañu ne aussi lu gën a tax sénégalais yi ak ñenn ñi nga xamante ne dañuy jënd produit yi nga xam ne mooy ci biti réew la plupart du temps tamit boo leen euh, waxee li nga xam ne mooy baaxaayu produit bi nga xamante ne moo nekk fii muy consommé local bi muy made in Sénégal bi liñ lay njëkk a wax mooy que non made in Sénégal bi dafa cher da ngay bëgg a jënd benn moquette wala nga bëgg a jënd benn fauteuil wala genre yenn bagages yi mais prix bi ñu lay wax day cher tellement que tu préfères dem jëndi ji ko ci bagages yi nga xam ne dañ ko importé dañ ko importé voilà ndax mooy gën a yomb si ñoom naka la loolu demee lan moo tax tout le temps yi di ça. alors je vais aborder ñaari euh, ñaari points. Mm-hmm. Euh, benn bi mooy euh, évidemment made in Sénégal wala made in Africa lutax mu wara yomb et lan la yomb si relatif yomb si relatif euh, su ma leen exemple bu ndaw ma jël coton bu vierge jox ko sama cuubkat mm-hmm mu cuub ba paré ñu ñaw ko atelier ñu ñaw ko ba paré mu dugg ci boutique chaîne de production bi ñetti intervention amna ci ki cuub ki ñaw ak li ñuy jaay mhm. mais lool dafa am njëg mais si on dit que ñi nekk ci extérieur bi tamit même processus lañu suivre et pourtant seen bas moo mais parce que ñu ay industrie lañu monté ay industrie lañu ñu monté ñun ci fiñu tollo gum ci ñu ci bëri en tout cas nekkuñu euh, nekkaguñu ci industrie yu yu mag yu leen di permettre ñu am chaîne de production boobu et la deuxième chose euh, acheter le made in Africa ou le made in Sénégal engagement la ça veut dire man en tout cas clientèle bu ma am sur 80 ils ont compris que lu ñuy mun di jënd ci nunu design engagement bi lañuy jënd gëm-gëm bi lañuy jënd économie bi la ñuy jàppale loolu dafa am solo. mais nga yaakaar ne population bi toll nañ foofu tey ak seeni priorité ak dund bi ni mu chéré ñuy xool tey jii ne dañuy engagé wu du moment où mën nañu jënd loo xam ne tey jii seen poche attan na ko te dinañ ci mën a dund solo ci. xam nga made in Sénégal du rek euh, nga dem ci nunu design nga ñaw lu mhm. dunde made in Sénégal mooy nga jël sa benn tissu yóbbu ko ci sa tailleur bi nekk ci sa bopp koñ. Mhm. à la place dem jëndee ko benn robe bo xamante ni extérieur la jóge ñun dañuy sol robe yu jóge extérieur voilà sama armoire nekkul kessé 100 pour made in Sénégal euh, commencement ba fin amna ci lo loo ni voilà ñawé wuñ ko fi mais quand je parle de de de de de engagement là, wax en fait et nekkul kessé dem ci ay ñawkat yu yu yu ñu xam dem ci ay ñawkat yu am marque. yu am marque même tailleur bu nekk si boppu. Euh, boppu koñ bi dafa dafa dafa bokk ci loolu. daf si bokk. parce que soo demee ñawlu si moom sa benn grand bubu sa benn xartum wala leneen ba bokk nga si li nga xamante ne nii su liggéeyee fayeeku dundal njabootam. Mm-hmm. maintenant la réflexion en tout cas man par rapport à ce ma gisee fu textile bi di c'est qu'on essaie de réfléchir sur le textile africain suñu ay nous suñu ay matières suñu ay tissus et que tey su dougué duggee Burkina jënd fa coton liggéey ko A à Z que ce soit bouton fermeture wëñ bi koy ñaw ba machine bi koy ñaw ñun ñu gor lu si defar loo xamante ni nii ñun ñoo ko mhm. pour engagement ça veut dire Mhm. et puis pour nous développer son économie mhm. mais quand on parle de New made in Sénégal du élite qu'est-ce? Mhm. élite C'est ñu am marque wala ñu am ñu une euh, façon structuration structurer. c'est aussi tailleur bu nekk ci nous koñ bi buñ ko nous nga jënd il y a peut-être euh, ràbbkat si dommage bëreetul si si si si mbedd mais ko xamante ne nii bi ça fait 25 ans muy cuub nek si si koñ bi am coton jox ko mu ciubal la nga dag si salu rafet jox ko tailleur bu nek si bop koñ bi ba mu ñewal la ko. je pense que éveil bobu tamit amna hein, les gens euh, ñi ngi consommer made in Africa sax lay wax ñu ngi koy consommer bu baaxa a baax après devoir aussi ñun ñi ñu gën ci yee ñi et puis commencé na du arrêter et puis pandémie bi day tax nit ñi gëna a ñuy jëfal suñu bopp di sol suñuy euh, suñuy dal di sol suñuy yére et puis di xalaatal suñu bopp mhm. je je je reviens tout le temps ci lolu parce que tamit di wéy xalaatu jàmbur wala buñ lay imposer musiba la si réew en tout mhm. cas ci réew buy dem ni ñuy réfléchir si ni ñuy suñuy gis-gisu bop mhm. yu mengo fa ñu jógee fa ñu bokk et comment je veux dire lañu ñu mëna def ba yegg ci yenen euh, level. Mhm. Euh, tey jii noonu nekk di yëngu si li nga xamante ne mooy wàllum ñaw wàllum sens ay cuuraay parfum et tout euh, nga ñëw tuuti rek nga daal di may téléspectateurs yi lay seetaan ci li nga xam ne ñoo lay yëngu moom ngay yëngu maanaam ñi la xamagul gën a découvrir kam mooy noonu. alors man. Marie-Madeleine Diouf la tudd mon surnom nous le mu ñu jox ko marque de bu Nounou design by DK donc Nounou design by DK c'est une marque de vêtements made in Sénégal euh, on fait de la recherche de matière pour raconter le vécu et l'histoire des peuples à travers le design mooy dañuy dem gestu, matière yi nga xamante textile bi nga xam dañ koy Afrique suñuy génnee ay collection wala suñu koy ñaw ñu nettali histoire ak vécu yu dëkk yooyu nu ñu dundee ak seen textil ba yegg si foofu soo waxee loolu rendre hommage am na si soo waxee loolu toog ak peuple yi xam nu ñuy dundee am na si soo waxee loolu wax ci héritage yu dëkk yooyu ña koy liggéey bokk na si héritage li nga dafa am solo ci dundu doomu adama. li donc su euh, dañuy liggéey matière yu euh, matière bi nga euh, la si man indigo. oui effectivement indigo. Mhm. Euh, su ko weesoo pantise yu ñuy fekk ci dëkku séeréer yi mhm. nga xam ne dañuy continuer ñun di ko liggéey ak ay ràbbkat yu ñuy rabbal paañ yi nga xam ne moom la ñuy utiliser suñu atelier yi mhm. euh, ak cuub cuub bi nga xamante ne nii euh, monté woon nañ fi benn événement sur la photographie des indépendances ak textile mhm. bu tuddoon fadi di benn exposition de photo et on avait monté avec le commissaire de l'expo ay atelier de teinture ça veut dire partage d'expérience one savoir-faire Moi, li ma doon wax sank ne sénégalais yi sol len li jóge sen deuk te wonew len A ba Z lolu naka lañ koy liggéeyee am lu lu len ci ump donc on a monté atelier yu mel noonu euh, so design on fait des centres, on fait du cuuraay on spray made in Sénégal cuuraay mhm. nak, nag samay mam maam am ak confinement bi cuuraay dina am solo. ci biir oh, comme boutique bi dafa tëj ak atelier bi depuis plus de 25 hum, jours. Mhm. Euh, on livre une fois par semaine. waaw femmes yi daal ñi ngi koy jënd et puis soxlawul taal euh, ànd. Mhm. c'est du euh, c'est en spray liquide la qui porte les noms de mes grands-parents ça veut dire sama yaay yaayam. jusqu'à la sixième génération. Mhm. donc muy liwaan jàmboñ waatew Nguidé Dibor ak Gnilane ñu ñëw nag dollu si Agen Agen c'est parce que bu ñu génnee Jamboñ on nous demandait sa sœur et c'est l'histoire qui revient ci histoire au Sénégal Agen ak Jamboñ dañu àndoon cousinage entre Joola et Seereer tout à fait biñ ñu koy laaj lu bëri nag dañ leen ko indil donc muy loo xamante ne ni macha allah nit ñi bëgg nañ ko alternative la tamit ci ci saxaar yuy am ci suñu kër yi terewul suñu kër yi di xeeñ cuuraay di xeeñ gongo. Mm-hmm. ak euh, spray. Mm-hmm. waaw muy lu sénégalais yi accueillir bu baax a baax a baax ñu leen ci gërëm di leen di sant ci euh, choix bu ñu porté si nunu senteur ak nunu design. Uh-huh. Euh, déjà sax li nga xam ne moom ngay wax ni muy cuuraay bi ak centre yooyu noonu gis nañ ne que léegi confinement bi monsieur et madame seront obligés de rester à la maison. travail, télétravail, la nuit de subir et tout. Là, ça va permettre à la femme de reconquérir son mari une deuxième fois. Avec Tchoura et avec dina elle va exhibir Wow, euh, lolo si vu que les euh, euh, les couples restent beaucoup plus à la maison évidemment avec le confinement <laughs> mais c'est aussi euh, bien-être là bien-être là je veux dire retrouver des odeurs de chez nous tu suñu ben, si on a la possibilité de l'avoir tant mieux Mhm. d'accord kon rek euh, dañ lay bàyyi nga euh, jox sa dernier mot nga wax jàkkaarloog sénégalais yi daal di leen jox ay conseils ci li nga xamante ne mooy consommer local bi ak fii nga xamante ne moom la ñu toll ci maladie bi nga xam nous sommes obligés de rester chez nous euh, amatul voyage amatul dem jëndi bagage ñëwaat et tout donc ñu bàyyi la rek nga daal di jàkkaarloog ñoom. ba di leen gërëm di leen sant déjà pour pour.

Euh, su weesoo loolu euh, wax nit ñi ni ñu gën a góorgóorlu ci hygiène <laughs> surtout jamono ji ñu toll euh, raxas seeni loxo suñ ko am suñ ko mënul am utiliser ay gel hydroalcoolique mhm. wàññi bu baax déplacement yi ku amul loo def si biti nga toog sa biir kër parce que jamono moo ko laaj pour ñu mën a mhm. et puis respecter mesures sanitaires et puis autour de nous aussi on a la possibilité même à distance de sensibiliser euh, les populations nous parce qu'on est des porteurs de de voix. Mhm. et pour euh, pour finir c'est aussi le moment pour euh, ay PME chef chefs d'entreprise de réfléchir si suñu un plan marketing ubs pour nous convaincre les Sénégalais, et les Africains à consommer local mu sommes accessible et ensemble nous vins li nga xamante ne nii mooy d'accord euh, kon nag euh, leer na ki nga xamante ne moom la ñu dalaloon ci plateau bi ñu koy rappeler ñu ko xam ci Nounou Design nekk di yëngu ci lépp lu nga xamante ne mooy wàllum consommé local ak lépp lu nga xamante ne day dem ci wàllum solo ci wàllum sens ay cuuraay ak yu demee noonu lépp rek di waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne mooy situation bi ñu toll jëmale ci coronavirus Covid 19 bi nekk di def ay jalooro yu mag ci àdduna bi mu waral tey nag ñu daal dina xam ne que ak frontières yeeg li nga xamante ne tëj nañu ko muy. nga xamne bagage yu dugg ci bagage yu genn ti tay ji on est obligé ñu tok suñu ay cœur consommer li nga xamne tane mom lañuy bay manam bay dundé fi mu nekk ni nak ci loolu lañ doon waxtaan defé na nak waxtaan bi richeur na loolu te liñ ci wax yi te di ngeen ci jëlé lu bari di leen jox dig dajé ci benen samedi inshallah